mangoog mbokk yi jàngeen jëf dellu si nañ seen émission bi nga xam ne moo di gindi ànd ak yéen euh, ci aljuma ju jot euh, ci solution TV waaye alxamis ji jot ci li nga xam ne mooy wal fajiri ñu sant leen gërëm leen jaajëfal leen am mbégte yéen ànd ak sëriñ Abdul Aziz Diaw ni ñu koy àndee bis euh, jot ci waxtu wi ñu waxtaane xam-xam waxtaane réew mi moom waxtaane itamit li nga xam ne moom la fi maam bàyyi te muy ay mbir yu ñu daan fajee ay saafara ndax nag bu alquran ne maa faradna fi kitaabin min shay'in kon nag lépp a ngi ci biir même ki bëtam fàttu sax alquran ni am naa ci solution ki noppam di metti alquran am na ci solution même xale bi yeex a wax alquran da ci am ay solution yooyu yëpp di ay mbir yoo xam ni nag moom la gaa ñi dem gëstu ji fu nekk nag mu jaral ko fa mu dem fa moom Serigne Abdoul Aziz si Serigne Abdoul Aziz jaw mu jaral ko di yëkkati xaalis bu weex tàll di ko fay ci ay turu yàlla mu jaral ko dëkk lu mu sori sori sori sori mu jaral ko jël essence jëlub otoom fu nekk mu dem fa ci dëkk yi mag mu ne lu mu sori sori fa mu ne lu mu ruqee ruqee sëriñ Abdoul Aziz jaw dana jëlub tànkam dem seeti ko ngir di gëstu ci xam-xam boo xam ne itamit nee na li tax ma def ko yéen a ma ne ko lu tax mu ni ma ndax comme yéen saa su ne ngeen woo ma ni ma kaay wax bëgg naa di indi lu bees ci li nga xam ne mooy wàllum faj ndax bëgguma lu ngeen ma laaj ma ni xaw ma ko gëstu googu nag ko may loolu tax na macha allah mu boole liñ naan culture générale ci wàllum faj Baye Assane Mesre lañ ciy àndal ginnaaw bi mu nuyoo ñu ñëw ak Serigne Abdoul Aziz Diaw. jërëjëf soxna bu ñu ngi santaat yàlla bu baax di gërëm Sénégal yi nga xamante ni ñu ngi ñuy topp te dañuy bàyyi xel di ko gërëm moom Modou Diouf ak Abdoulaye Diallo mi nekk si technique bi Abdou topp ak Serigne fàll Gumbala mi nga xamante ni macha allah mi ngi ci liggéey bi lu am solo mu koy def waaye di gërëm ñi seetaan si tele bu mag bi ak ñi nga xam ne ñu ngi topp site internet bu mag bi di solution TV di ko ndokkeel moom sëriñ Abdoulaye Ndiaye moom sëriñ Jim Ndiaye borom Kaymoor ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér te bisam bii nga xamante ni mi ngi koy defal l'islam muy la 3 incha allahu rabbi yàlla na ci am ay ndam yu mag a mag mag mag ñu fekk ko te tal ko sëriñ Abdou a nga fa ñoo nga fa ñu ngi ñaan bu baax a baax ñu dugg si si bisimilahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabbi alamina jërëjëf soxi bu ñu ngi lay ndokkeel di ndokkeel sëriñ Abdou Aziz si jàmm. mi ngi noonu jërëjëf Baye ko rek incha allah xam naa ñun moom la trois ñu commencé waaj daal di defaraat xam te nii moom man dem naa ci waaje mu defaral ma xoolal ma lumière yeeg mm. xoolal ma cardan yeeg yooyu noonu pour ñu waajal ko bu soobee yàlla dana rëy lool aywa sëriñ Abdou Aziz ñu bàyyi la nga nuyoog askan yi biir ak biti réew alhamdulilahi rabbil alamin walxaqibatu lilmuttaqin wala xudwaana illa ala zalimin mm. wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amma baadu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ba ñu sante yàlla julli si yoon ti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jagleel nuyoo ba gën a tedd te gën a sell te gën a barke borom solution tv borom borom réalisation yu mag yi alaaji Sa Ndiogou Mbeng mm-hmm. di ko jox wàcc waayam di ko ñaanal yàlla wala ñu nuyoo bu baax sëriñ Sonia bu Diop directeur kër gi di la jox sa wàcc waaye di la ñaanal yàlla defal la tawfiq ak taysiir alaaja seen mesre ñu ngi lay nuyu di la ziyaara <clears throat> noonu la ñu nuyoo nag képp koo xam ne yaa ngi jàpp si liggéey bi moo xam sëriñ Modou Diouf topp sëñ Abdallah ak képp koo xam ne yaa ngi jàpp si liggéey bi moo xam jigéen nga wala góor mhm. ñu ngi lay nuyu di la ziyaara noonu la ñu nuyoo nag képp kuy topp sëriñ Abdou Aziz Diaw fii si solution TV télé bu mag bi ak Walfadjri si biir réew mi ak bitim réew mhm. suñ nuyoo jëmale ko si yéen mooy ñaanal leen yàlla defal leen tawfiix ak taysiir di nuyoo bu baax suñ kilifa suñ loxo suñ nuyoo ñu ngi ko teg si loxo si Abdoulaye bu sëriñ Jim mu jotal ñu si ko bépp xalifa généraux bu yeew si biir réew mi ak seen njaboot di leen fàttali bu baax la 3 février ilaa Kaymoor gàmm gu mag goo xamante ne mi ngi koy jagleel jagleel yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam way juróom taxawaloon ko dem bàyyee ñu ko ñu ngi ciy yi ak jullit àdduna bi yëpp noonu la ñu nuyoo nag kilifa aada yi jiital si Macky Sall mu yàlla teg si bopp réew mi yàlla gungal ñu ko ba 2024 mu am gàllankoor di nuyu bu baax ki yàlla jiital si xoli sénégalais yi yaakaaru Sénégal ak Afrique ku ndaw ñu tiitaroo te du leen tiital borom natt yu bëgëri Alaaji Ousmane Sonko ah, di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiix ak taysiir yàlla gungeel ñu ko te teel ñu ko sàmm ko te sàmm ak wér gu yaramam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu te yàlla sàmmal ñu nag bépp àndam moo xamante ni yaa ngi si biir réew mi ak bitim réew yàlla teg leen loxo insha allahu taala ànd nag yombul nañ mu ñu rek te yokk ñaan incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi amin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu asan nag tey li ñu bëgg a waxtaanee mhm. bokk na ci dina dinañ wax ak euh, ak kub Okulam naam Okulam Okulam Okulam mhm. ab ab kii la man moom lii tey laa ko mos a dégg. tabaarakallah euh, ñu ñëwee une ci li nga xam ne daal mooy luy. yokk nit. tabaarakallah waaw lépp loo xam ne ak ku yàqule lépp luy yokk nit ak nit ko wax da ngay yàqule. loolu dinañ ci ñëw. Mhm. après nañ jël benn tomb waxtaane ko muy kañaan. jërëjëf ñëwit ci wàllu li nga xam ne mooy dànk man moom dànk li ma ci xam mooy xolli yéey. macha allah lekk buusu. macha allah buusu xoo kii xoox bi. macha allah gannaaw baat ci actualité dinañ ci ñëw li nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaanee waaye balaa loolu sëñ Abdou euh, am na loo fi bàyyi woon ab laaj. Mhm. ndax laaj bi yëg nga ku ko tontu wala. ba léegi gisuma répondre waaw nga mbiru baat léegi bu ñëwee ba ci fin bi dama bëggoon bu ñëwee ci fin bi mm-hmm. bu dee da koy tontu nga tontu ko bu dee da sampaat laaj nga samp laaj ndax mbiru baatin la d'accord waaye danañ ci dimbale nit ñi mm-hmm. seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. turamang si aboubacar sadiq turamang si ahmad a tidiane sarif turamang si xanaa ko léegi daanaka léegi mu jeex ah. Seydina Muhammad Seydina Muhammad noonu nga koy bindee Seydina Muhammad boo ko xisaabee hmm. xisaab Aboubacar Sadiq hmm. xisaab Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu anhu des na yeneen tur nag hmm. xanaa kon nit ñi léegi war nañ ko mën a xam loolu mooy baatin bi <laughs> bëgg naa ne nga sampaat laaj bi ni bàyyi ko noonu incha allah bëgg nañ nit ñi nit ñi nit ñi jëfandikoo ko xam nga mbiru baatin son bi dafa xaw a yéeme te lii baatin la gis nga lii ku tarbiyut mag mu wax la lii mooy secret bi rek mënoo koo xam nit ñi am nañ xam-xam bu doon aay bee fanaanut balaa bësta nit ñi jox nañ ma répondre bi waaye bii moom xaw na jafe suñ nit ñi ndax mbiru baati la ko gëstu xam ko benn du jàng moo koy eggale nit hmm. eh, seet mag mu xam tur yàlla mu dimbali la xamal la lii hmm. wala nga seet leneen rek waaye daal baaxee nañu daal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. turam a ngi si biir Aboubacar Sadiq turam a ngi si biir si Ahmad Tidiane radiyallahu anhu turam a ngi si biir des na nag yeneen mbir. macha allah bu volontaire 4444 bi feeñ. kon mi ngi noonu. dinañ ci ñëw sax ci fin bi gën koo yaatal. Mhm. kon bàyyi ba la ñoo dugg ci li ñu bëgg wax muy euh, okkublam. Mhm. ak yooyu waxtaanee ko nag seet bi def naa ñaari alxames a ngi nii waxuñu ci. Mhm. xam naa nga borosé ko rek ñu di jàll. waaw sëriñ Abdou Aziz euh, seet bi walla euh, nan ngay seete maa xam nit ki mën nga koo seetal. ak naka lañ koy seete waaw alhamdulilah kattan ba baa mi ngi dox wala. waaw jërëjëf. nit ñaa ngi siy bàyyi xel bu baax. garabu kattan bi. sooy bu nee naa la nekkut garab boo xam ne nit ñi da koy naan garab la boo xam ne boo koy jëfandikoo da nga koy réer sa awra awra bi ku dee koo xam ne am na dara bu dee amul dara ma di ko réew matin soir suba ak ngoon force li nga bëgg yàlla da la koy jox waaw moom dégg naa la képp ku ma si lekk xaalisam boo gisul résultat la ñëw ma dalalal sa xaalis amul sax werante mm-hmm. amul benn werante loolu xam-xam la boo xamante ni boo ko jëfandikoo yàlla defal la tawfiix mm-hmm. euh, bitim réew bitim réew listixaar deux personnes la ñuy jël sa tur sa tur yaa année bi nga jur juddu lu ñu yàlla la ko bu dee Sénégal nga nekk heure liggéey bi 10 heures suba la bi ba 18 ñu arrêté chaque jour dañuy liggéey ba mu des vendredi mooy heure repos bi waaye 18 moom ku mu fekk suñ kër mënuñ laa waaye du tara appel téléphone yi mën naa continuer incha rabbuna karim bitim réew deux personnes Sénégal heure boo ma ooyee ma ne la feeg nangam mi ne nga oma lu ñu yàlla xamal ci yow ñu wax la ko sooy bu nit kuy dund séeréer mi war ngaa xam sa sarax pour sarax mën naa fal nit sarax mën naa folli nit bëri na koo xam ne mbiram dafa yàqu ñu foog ne mystique a ko yàq fekk déet ñàkk sarax rek la doomu aadama yi dafa am ñu leen yàlla booleeg nit ku ne yàlla euh, na ak ñaari malaaka mooy kiraaman kaatibiina nit kuy dund rek yàlla boole na ak ñetti jinne ñeenti rawxaan juróomi xuddaam amul benn werante ah, te it doomu aadama mooy seen sànq ñoom ñëpp boo góorgóorloo nekk fi nga teg sa tànk nga war koo xam ñoo ñëpp yaa ngi conditionné boo demee nag da nga saafoon na ba mel ni sama classe gi raba lay yàqal jinne fàdd la leneen leen fàdd la waaye nit bu tewee doo tànkam fi mu ko war a teg moo nekk xayrul bariya malaaka sax a teg waaye nag bu tegu tànkam fi mu ko a tànkal moo tax doomu aadama ñaari ma xam boole nekk mooy nekk xayrul bariya gën su lu yàlla bind waaye nag moo nekk sarul bariya lu yàlla bind moo si gën a yës mën naa dem ba gën a bon mënaat moom doomu aadama mhm, mhm. 92 92 ngeen jokkoo ak moom sëriñ Abdoul Aziz Diaw. Mhm. ñu okkub lam. Mhm. Mhm. daal du mooy lan. waaw xam-xam la boo xamante ni boo waxee xam-xam bi dafa mel ni lu xaw a reetaan lu fekk xam-xam la xam nga mag ñi ñoo liggéey ñoo tuddee xam-xam boobu okkub lam maanaam boo liggéey bu amee xam-xam bi jëfandikoo ko lu ab xokk mënut si lam. nit du ko ah, mën si xam nga okk sa wee mën naa okkub lam ba gaañ lam bi. xam-xam bi boo ko jëfandikoo loolu la waaw kay loolu la mag ñu tuddee okab lam maanaam boo ko tuddee boo ko xafee ba jëfandikoo lu lam lu okk mënut si am lam nit mënu ko si yow mhm. euh, xam-xam bi nag euh, baqara la ba naas mu nekk cent quatorze aaya cent quatorze saar waaye nag doo bind aaya saar yëpp saar bu si ne da ngay dalee sa bopp aay bu njëkk ba ak aay bu mujj ba li ngay bind si alquran mhm. bu dee bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin fa ngay yem bàyyi saar ba de dasi dali si xayril maxdubi alayhim wala daalin mu jeex bu dee alif laam mim suratul baqara da ngay bind alif laam mim aaya la nga dem sa mujjantale saar ba laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaha laha ma kadabat wa alayha ma ktasabat rabbana laa tuwaaxisna in nasina ba saar ba jeex mooy benn aay bu mujj ba nga ñëw suurat ali imran alif laam aaya la nga ñëw bi ci yàlla fu mu wax naan mottale yaa ayyuhal ladiina aamanu isbiru wa saabiru wa raabiru wa taqullaaha la'allakum tuflihun nga nga nga bind ko ba sa xul onze bi rabbi naasi nga bind xul onze bi rabbi naasi bàyyi fa la si des nga bind mina jinnati wa naasi nii ngay bindee secret bi ak uh, ak cinq aaya yoo xamante ne 33 nga koy bind ayatu kursi da nga ko bind 33 laqad jaakum 33 li ilaa fi quraysin 33 fan laq ak naasi mu am yenn cew cew mi ànd ak nag loolu mooy secret ak ko lam sooy bu mag ñëpp dëppoon nañ ci ku yàlla may secret bi nga naan ko juróom-ñaari fan sangu si juróom-ñaari fan lu xokk mënu si lam nit mënu ko mën si yow hmm? rab mënu ko si yow uh, nit mënu ko si yow pexe mënu ko si yow làmmiñ mënu ko si yow loolu la mag ñu tuddee okab lam xam-xam bu reelu la waaye képp ku ko affaire jëfandikoo yàlla may la protection boo xam ne doomu aadama doo nit ñi dañoo mën a yàqalaate de mënu laa dogaale te it bu ñu lay bëggee ñu tawfiix la xaafizuna yàlla mooy wàcc alquran bi te moo koy wattu te it alquran moo tax mbooti yàlla yi boo ko jëfandikoo jaarale ko si biir alquran yàlla defal la tawfiix xokkab lam loolu la mooy 114 saar yi saar bu si ne bopp bi ngay bind aay bu njëkk ba ak aay bu mujj ba ak 33 yu muy ànd ak ak secret yu muy ànd ak moom ngay bolante ko jëfandikoo juróom-ñaari fan insha rabbuna alkarim bu Mm-hmm. ku ko jëfandikoo mucc macha allah lu xokk mënul si lam mm. nit du ko mën si jamucc macha allah noonu la ma ñu tuddee okab lam insha allah rabbuna al karim dégg nga jërëjëf kon mi ngi noonu sëriñ Abdoul Aziz Diaw ca Thiès la nekk foofu mooy euh, basam ndakaaru nag fi la nekkoon ay jamono yu xaw a fii nga xam ne mooy ci yoof mm-hmm. gannaaw baat ñu ngi nuyu waa foofa ndax ba léegi ñoo ngi euh, demandé waat ñoo ngi dellu si wallaay wallaay nag dal waay ba dal lay Thiès la googu na yàlla defal leen moo tax soñ bu dëkkandoor dafa am solo mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan wax tànn leen dëkkandoor balaa ngeen daan dëkkuwaay macha allah mm-hmm. kon mi ngi noonu ma nga ci Thiès ci jamono ji numéro yooyu ca ngay jaar mu wax la nan ngay def ba dikk ca Thiès bàyyi kon ñu dem ci li nga xam ne mooy ku bëgg yokk mm-hmm. maanaam nag ku bëgg ku bëgg yokk moo bu ñu ko waxee mooy nit ki day toog di gis ay nit yi di am lu leen yéem jarajaf jàpp ni war nañ faa mën a yegg mm-hmm, mm-hmm. walaat koo xam ne am na lu mu téye waaye mm-hmm. dafay ragal yàqule te gis nañ ko ba taay nag allah waaw gis nañ koo xam ne yor na ba góojal ba taay mu jékki-jékki mbir yee dem wallaahi waaw mi ngi noonu sëriñ Abdou yokk wala bokk ko ci daal kàng wala ku yokk ba yëg ko jërëjëf euh, secret bi mag ñi dañ koo tuddee ku ay mbiram yàqu wala ku ay mbiram di wàññeeku maanaam daa ngay am cent pour cent léegi mënatoo am cinquante pour cent. batterie bu nga bëgg a dabaat cent pour cent mais dafa ji nga téléphone sax bu wàccee. ba batterie bu wàccee boo ko saatee fay fay fay si la jëm. doomu aadama fii ak sa mbir mi ngi daan dox nga gër-gër muy deltu ginnaaw boo si jugul rek da ngay dem ba ne ko muus te it batterie bu fay am na foo xamante ni boo ko kii bu ñu la maasut dootu mën a doxati. secret yi noonu la mel moo tax ma ñu tuddee ko sirrul xajib li man naqasa amruhu moo ko xam ne ay mbiram dafa wàññeeku aw fasada amruhu wala ay mbiram yàqu. Mm-hmm. amoon na entreprise amatu ko euh, daanay liggéey liggéeyatul daanee say sëy bi yàqu moo xam mbiram nu mu yàqoo entreprise bu mag la yoroon entreprise bi daanu wala man araada an yakuna zamali wala nga bëgg a nekk borom alal mag ñi liggéey nañ benn secret boo xam ne sony bu mhm. si suratul waaqia mhm. nit ay mbiram lu mu yàqu yàqu yàqu boo ko defee yàlla tagal ko nit ay mbiram bu doon day wàññeeku lu mu daan am mënatu ko am mënatu da gañ a marché mënatu da réussir mënatu da tukki mënatu da nàngam mënatu da nàngam boo jëfandikoo yàlla defal aay bi saari yàlla defal la tawfiq mhm. yaa ngi bind suratul waaqia ba si falaa uqsim bi na nujum nga bàyyi fa saar ba nga dem bind suratul xadiidi ba saar ba jeex nga door àggale suratul waaqi'an danaa wax secret bi ndax secret juróomi saar ngay bind mhm. beneen bi nga bindaat suratul waaqi'an ba si falaa uqsim bi muwaqi'an nujumi nga taxaw fa bind suratul xasri ba xasri jeex nga door àggali saar ba mm-hmm. ñetteel bi nga bindaa suratul waaqia ba si falaa xusi bi mu waaqia nujum nga bind suratul safi ba safi jeex mm-hmm. nga door bottali waaqia mm-hmm. ñeenteel bi nga bindaat waaqia ba fala ba si falaa uqsim bi mu waaqia nujumi nga taxaw fa bind suratul jumaati comme que àjjuma lañ toll nga bind suratul jumaati ba sura saaru jumaati jeex nga door àggali saar bi juróomeel bi nag fa la yam nga bind waaqia ba si falaa uqsim bi mu waaqia nujumi nga bind suratul taqaabut mooy yusabbihu lillah àggale saar bi mm-hmm. son yi boo paree nag dafa am benn xaatim bu àgg bu tudd xaatim muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom ngay boolanteeg sekare bi nga ut uh, juróom-ñaari sondeel buñ jullee tàkkusaan ba tàng jant bi waaj a so si ngay taal sondeel yi maanaam jant bi balaa jant bee so fekk teg nga saafara ba pare taal sondeel yi mu war saafara bi boo demee ba côté minuit une heure sondeel yi dana fay nga taalaat yeneen sondeel mu jëm fajar mm-hmm. bu ñu noddee fajar rek nga commencé sangoo sangat bi juróomi fan nga koy sango ku bëgg a gañe marché mhm. boo ko jëfee am ay marché ku ay mbiram yàqu boo ko def yàlla jagal ko ku bëgg a yokk si fànn goo bëgg yokk rek boo jëfandikoo yàlla yokk say mbir kenn mënatu laa dogaale mhm. sooy bu mhm. nañ dellu si alquran pour yàlla defal ñu tawfiix gis nga lu ñuy euh, dang-dangi si àll bi bay bëggatee te mënuñoo am dara buñ delloo si alquran yàlla defal la ñu tawfiix secret bi dafa am sarax boo ko sangoone ba juróomi fan yi jeex da ngay ut juróomi kilo dugub nga saraxe ko waaye nag xaatim muhammadu rasulullah ak yu muy ànd ak moo xaw jommal nit ñi sooy bu ku ay mbiram Mhm. boo ko defee mu jag ku ay mbiram wàññeeku boo ko defee yàlla yokk ko ku mënta am dara boo ko defee yàlla may la teraanga àdduna ak alaxira mhm. amul benn werante mhm. moo tax mag ñu tuddee ko mooy secret boo xam ne bu yéeme la si koo xam ne ay mbiram dafa wàññeeku wala ay mbiram yàqu lu ay say mbir dëgër dëgër dëgër boo ko defee suñu borom nooyal ko moo tax secret bi nii la tudd képp ku ko jëfandikoo yàlla defal la tawfiix àdduna ak alaxira nañ dellu si alquran incha allah am na solo kon loolu mooy nag li nga xam daal képp ku bëgg a yokk daal yéen ñi seetaan ku ci nekk boo ci amee wàll xam nga bu dee mm-hmm. bëgg nga préserver li nga amee mm-hmm. yoon waa ngi noonu ndax ñàkk mag ñi dañ ko doon def wallaay di ñàkku sëy di ñàkku kër mm-hmm. di ñàkk ab place uh-huh. ab àndit dañ koy ñàkk wallaay kon boog mi ngi noonu numéro sëriñ Abdoul Aziz jaw mi ngi noonu léegi nag Assane dama bëggoon ñu waxtaanee dànq doog a ñëw ci kañaan ndax lii lépp sëñ Abdou di waxtaanee li tax ñoom ñii ñëpp ñu bari liggéey mooy iñaan ak xol yu xat moo bari jërëjëf jërëjëf ndax man bu ma la iñaanewul du ma la gasal du ma la mm. suulal jërëjëf jërëjëf waaw kacce ñu dem ci dànq xam mm. naa Ablaye Diallo dinañu woon lan mooy mm. dànq Serigne Abdoul Aziz dànq euh, lan mooy njëriñam waaw xam nga sony bu mm-hmm. nit ñi dañoo faju ba fee ba sonn te mënuñoo wér te it Sénégal sax dégg naa am na ñoo xam ne dinaa naa asma dañ koy calme ah. waaye duñ ko faj asma fekk dañ koy faj te dànq bi da koy faj ah li mooy dànq waaw maanaam jënd ko lekk-lekk boo amee ay renam waaw jege waale micro bi boo amee ren ren dànq wala xasam dànq mhm. yàlla wax na wax na si alquran alladina amanu wa tatma ina xulubum bi zikrillah mhm. alaa bi zikrillahi tatma inil xulub mhm. aaya boobu boo ko bindee nga bind yaa ilahal alihati rafiho jalaalahu ab lim nga koy bind nga boole ko xasam dànq di ko naan bu bëree ba bëri vingt et un jours mu set asma jeex si yow takk boo amee bépp feebaru xol boo xam ne du cancer boo ko jëfandikoo yàlla defal la man fii xu a cancer kii fajut cancer. Mhm. wala nga xam xaw ma si secret buy faj cancer. Mhm. waaye feebaru dënn mooy asma. Mhm. feebaru fatt. dënn buy riit dënn buy nangam dënn boo xamante ne foo toll day xuquqi. boo ko jëfandikoo yàlla defal la tawfiix àdduna boo xam ne mosoo koo gis. sooy bu boo amee dànq bi nii xolli di. nga wut fukki dànq ak ñaar xolli xolli di ba nga xamante ne boo ko xolli nag doo ko xolli muy toj par benn da nga koy ne mhm. boo dindee côté bi côté bi dana dañ nga dindi côté bi côté bi dañ mu nekk fukki dànq ak ñaar fukki ak ñaar mhm. ngay bind mhm. ut nga ut nga bind zuyina linnaas waaw boo ko bindee saafara ba pare da nga koy bolante xobi dànq nga dëb boole xol di ak xob yi dëbb ko jël saafara bi nga kaasee ko zuyina linnaas bi mooy xollite dànq yi sooy bu waaw ku bëgg yàlla yombal sa àdduna boo ko jëfandikoo yàlla defal la tawfiix say mbir day yomb teraanga day am fi nga jëm danga fa yegg te nit du la dogaale nit du la dogaale mm-hmm. bu dee ne da nga bëgg nit koo xamante ne da nga bëgg a të mm-hmm. nga am dañoo xamante ne ñoo sangu mag ñi dañuy dem ba si dànq ñu ga xas gas ren ba gis ren bi ñu xar ren bi si digg bi jël téere boo xamante ne yaa ngi koy bind wa in yakaadu alladina kafaru mm-hmm. delloo ko seroon na dànq bi denc ko fa suul ko ñib si

am na si yoon boo xamante ni képp koo jëfandikoo vingt et un jours mhm. lu asma tar tar tar si yow yàlla teqale kook moom insha allahu taala yaa ngi bind waaw yaa ngi bind aaya bi si yàlla du alquran mhm. alladina amanu mhm. bi zikrillah ala bi zikrillah tatma moom ngay bind bind boole ko yaa ilal aliate rafi al jalaaluhu vingt et jours mooy lu si gën a bëri bu dee nag da ngaa neex yaram am na ñoo xamante ni sooy bu da ngay sang ñaari nit kii nga sang ko juróom-ñaari fan mu am tawfiix kii nga san ko juróom benn weer du am dara dafa am ñoo xam ne seen yaram yi la mm. am nañu seen yaram yi neex am ñu seen yaram naqadi moo tax képp ku dëgër si asma boo ko jëfandikoo 21 jours pour topp na ko garab yi yàlla teqali la asma mm-hmm. man sëñ Abdou Aziz Diaw maa ko wax macha allah incha am na solo mi ngi noonu sëriñ la ñuy àndal ma nga ca Thiès Baye Assane Mesra mi ngi ci plateau bi di nelaw Lablaye Diallo dee ma ko zumal yenn saa mm-hmm. ndax des fois nelaw Baye Assane Mesra audio lay liggéey ba mm-hmm. nelaw jot mu dem nelaw guddi loolu day nelaw guddi man nag bu doon day ñàkk nelaw guddi sax kurus la waaw <laughs> waaye daal waaw aja bàyyi léegi nag hmm? ñu dem ci kiñaan wallaahi lu ci sëñ Abdou Aziz Diaw bëgg a hmm. wax tey waaw sëriñ ba tey mi ngi noonu iñaan oh iñaan maam ki ki koy def lay lor wala kam koy def lay lor iñaan daal xol xol bu bon hmm. ak xol bu feebar ak gën a yis si doomu aadama te gën a deltu ginnaaw sooy bu dafa am benn buur bu yàlla dénkoon jamono may ko teraanga lool comme liñ xam si buur yëpp buur boo gis day am ay dakk am ay bëkk néeg comme sëriñ si am ay garde corps mu am si benn waay boo xamante ni buur bi da koo jegaloon boppam comme Assane Mesere buur bi jegal ko boppam bëgg ko lool benn waay bu bon xol pexeel Assane pexe bu ne pour mu teqali ko buur bi yàlla dogalul loolu moo tax añaan yàgg na am te it day delluloo nit moom la arab di wax naan tooñkat boo xam ne heure boo ko gisee da nga gis muy deltu ginnaaw nga fona dañ koo tooñ fekk moo tooñ boppam mooy aji ajaan mm-hmm. moo tax alxasad laa yesuut ku añaan du nekk kañaan du nekk sang mm-hmm. léegi buur bi jegal Assane Mesere boppam comme saa njogu mbeg ngi si misaal bu gàtt rek mm-hmm. kilifa goo xamante ni dafa am ay bëkk néeg am ay ay garde corps am lépp mu jël Assane teg ko teg ko si peggam mu dem ba si biir benn waay gis ne saa njogu daal dafa jege diw sàngam affaire bi naqati ko chaque jour mu def effort bu ne pexe bu ne pour teqale Sa asan ak Assane mënu ko mm-hmm. benn jour mu ñëw ne ko yow Sa Ndiogou mm-hmm. Assane mii nga bëgg lool mm-hmm. ba lu mu wax rek nga ne loolu la wax xanaa déggu Assane Mesere lu muy wax si yow si misaal ndax misaal da ngay jege lu gën li nga gën a jege pour nit ñi man koo jariñoo ngir wan kañaan mu ne ko waaw asan lu muy wax si man Assane fi ma ko teg na ma ko bëggee lan lay wax si man mu ne ko Assane nee na si gémmiñ gi da ngaa dafa xasaw laa ilaha buur bi ne ko man li ma daj ci kii ak dama mel si moom lu tax mu ne sama gémmiñ gi dafa xasaw lan mooy firnde ne li nga wax waa ji euh, aji kañaan gi ne ko boo demee ooyu ko léegi bu ñëwee buy wax yow da nga gis mu fatt sa bakkan yi mu fatt gémmiñ gi wala mu fatt bakkan yi nga xam ne li may wax dëgg la mhm. ah buur bi ne ko ah da koy yaa yàkkamti jëru dóor say doom dama ooloo Baye Assane mu ñëw mhm. mu dem ooyu Baye Assane avant muy dem na mu jënd ko ñam bu am laaj ak soble mhm. maa ko jox asan asan lekk ba suur mu ne ko dawal uy si buur bi asan ne ko damay galaxndiku mu ne ko dama doog jëru galaxndiku buur moo la woo te buur dafa yàkkam ne mu ne ko bàyyil mu boros ndax laaj laa lekk mm-hmm. mu ne ko dafa xasaw mu ne ko buur bi dafa yàkkam te buur ku mu soxla da ngay daw ñëw mm-hmm. ah waa ji daw ñëw asan daw ñëw ba mu dawee ñëw nag ormal buur bi moo tax buur bi di wax asan sëgg mm-hmm. jël mbubb mi teg ko ci gémmiñ gi buur bi ne laa kii kay li wax dëgg lañ ma wax yëpp dëgg la kii wax dëgg la ah. may wax ak moom muy fatt ay bakkanam kon kii nee na sama gémmiñ gi dafa xasaw buur bi bind benn leetar mhm. ndeysaan moo tax mhm. ayib mhm. nit ku ñu añaane na ko xam kan kan ngay añaane waaw buur bi bind benn leetar jox ko Baye Assane ne ko demal joxal ma ko sooy bu sa dëkkab sàngam leetar bi nag ki ni woon gémmiñu buur bi daa xasaw waaw moom lañ jox leetar bi waaw ku waxoon ki ñu wax ne moo wax ne gémmiñu buur bi dafa asaw Assane Mesere bu nekk ak saa njóogu moom la buur bi jox leetar mu fatt bakkan moom la buur bi la jox benn leetar mm. ne ko defal joxal ma ko soñ bu moo def ko ministère France am te li ñoom ñëpp xam nañ buur bi leetara fu mu ko joxee rek leetaru maye la ndax ku may nga risque ku may dootoo ñàkkati mm-hmm. ah buur bi bind leetar bi jox ko Baye Assane ne ko leetar bi daal ma si def mooy demal si soñ bu jox jox la teraanga mm-hmm. Assane génn rek naa fekk euh, aji kajaan gi te sewaat moom ne ko damaa bëgg nga may ma leetar bi li wax ji ne ko leetar buur moom ma ko yónni pour ma jox bu job mu bañ mu jàpp ko di ko baab di ko baab di ko baab ak Assane ak xolam Assane jëkkati leetar bi jox ko waa ji. waa ji kañaan ji de. waaw mu ñëw indi leetar bi sooy bu jóg. si gàttal. waaw ba mu ko indilee sooy bu jóg sooy bu jóg li ji li li lii leetar bi waa ji aji kañaan ji mu ngi foog ne alal lañ koy may. Mhm. mu ne ko xam nga lu buur bi bind si leetar mu ne ko déedéet mu ne ko buur bi def na kii fi ma indil leetar bu ñëwee naa ko rey fees ko yaram bi ma fees dere bi ma feesal ko ak xatax indil ko ko. allahu akbar mu ne ko dangaa ngaa de man indi moom ma leetar bi leetar bi si Assane Mesere laa ko nangoo de mu ne ko déedéet buur bu waxuma loolu ku indi leetar bi la waxoon naa ko rey soo bu jàpp Assane waaja rendi ko daggate ko jël der bi feesal ko ak xatax léegi sa ëllëg sa Assane Mesere xëy si di liggéeyaat ak buur bi buur bi ne ko Assane kaay xew ndax ki ma yebal sooy bu jóg bi ma yebal li ma ko wax force da koy def lu tax ma gis la si jëmm ji mhm. lan moo xew mu ne ko yow diw sàngam dafi ñëw ne man ne yow yaa ma wax ne sama gémmiñ dafa xasaw mu ne ko billaahi buur mosuma ko wax mm-hmm. mu ne ko lu tax keroog mbay waxee man nga fatt sa bakkan lu xew mu ne ko damaa ñëw waa ji jox ma laaj ak soble ma lekk ko te laaj ko soble dafa xasaw mm-hmm. te naa ne ormaal gu ma la ormaal bëgguma laaj gi di la xeeñ moo tax may ngay wax ma jël sama gémmiñ nga fatt ko sama bakkan yi mm-hmm. pour bañ gi mu ne ko laa ilaha buur bi ne ko bis ni ki tey ku lay yéene safaan yéene ku baax alquran nee na man jaa bil xasanati fa loo xasur am am saaliha wa man jaa bi sayaati falaa yujzaa illaa mislihaa mm-hmm. ah, am na feneen fu yàlla wax si alquran ne na képp man xamila saalihan mm-hmm. fa li nafsi wa man asaa fa alayha képp ku def lu baax jëf jooju moo ko moom waaye ku def lu bon xay wu yépp si kawam lay këpp mm-hmm. buur bi na ko toogal ana leetar bi ma la joxoon mu ne ko damaa génn rek waa ji naafiq bi nangu ñaan ma leetar bi baab naa ko ba baab naa ba ma jox ko leetar bi mu ne ko léegi tey nga gis néew mi ko fii waa ju toog rek gis naafeq bi ñu indi ko aji kañaandi ñu indi ko daggati ko ba feesal bopp bi ak xetax ak der bi ak xetax indil ko buur bi buur bis ne ko bis ni ko tey ku la yéene lu baax yéene ko lu baax ku la yéene lu bon yéene ko yéene ko yéene ko lu baax xoolal bu doon li nga waaje lim ko yéene dëgg la konoon duñ la rey duñ ko rey moom lañ yow la ñuy rey waaye Assane Mesere mucc na buur bi gën ko tegaat ko ci peggam ndombal tànkam gën a yokk mu gën a am avancé kee ñu mujj ko rey moo tax sooy bu mhm. alxasadu laa yasudu moo tax yonent bi sallallahu alayhi bon ak naafeq ak kañaan rekk a taxawoon labit njabeer ko mhm. yàlla wax ko si alquran nee ko mhm. min sari nafaasaati fil xoqadi na nga muslu si aji yi nga xamante dañuy pas ak facce wa min sari xaasidin isa hasada na nga mucc na nga muslu si ay aji kañaan goo xam ne añaan na ba mënatul nëbb añaan gi mu feeñal ko xoolal sooy bu kii ñoom ñaar ñoo bokkoon liggéey si entreprise bi waaye añaan a tax ñu reykale añaan a tax mu foxoon na day dox digganteem ak buur bi fekk day gën a jegal boppam buur bi sooy bu asan baaxut kañaan baaxut dafa moom lettre bi bu masaan jógee ci buur alal la lettre bi bu mas a jógee si buur bi ñëpp xam na ne lettre tiranga la hmm. fekk buur nag lu mu si def mooy waa ji ma indi lettre bi ne sama gémm gi dafa xasaw bu ñëwee rey ko hmm. fees ko indil ma der bi feesal ko ak katax waa ji ba mu gisee leetar bi nag mu daw dab Assane Mesane ne ko dimbalem nga ma amee leetar bi ndax xam na leetar bi leetar teraanga incha allah mu mu ne ko buur bi mu yónnee Assane waa ji di ko baab di ko baab di ko baab ba ajal mu Assane mu jox ko leetar bi ne ko bakkan bi la ko jox mu agression yi bu rey ko macha allah añaan baaxul am na solo mm-hmm. sëriñ Abdou ci mm-hmm. njàngale mu am solo mi nga xam ne indi nga ko tey ci mm-hmm. wàllum uh, kañaan Assane nag defe naa ni ginnaaw loolu kon lii mooy li nga xam ne indi woon nañ ko ci wàllum uh, ñaan geek plante yi uh, junjal na leen ko ci wàllu kàttan gi mu yore su ngeen bëggee man ngeen koo seeti kàttan moom dañ ko daan naan am na ñu koy takkit waaye bii moom nee na ci sa bopp sàkkara ci nga koy laalale waaw waaw ab diir nga daal di eh, jot sa bopp man a jëflante ki ngay jëflante incha allah kon Assane actualité bi damaa bëggoon nga dem ak moom ci ñaar. muy mhm. Sonko mi nga xam ne fa mu ne ca prison bi la def. vidéo bu yees peq. Mhm. wax ci ay wax. Mhm. ba yow mi jiiñ nga ni affaire bi. beesut. nañ vérifier néegam ba ban téléphone a fa nekk. naka noonu Cheikh Niass mi jiite Walfadjri rek wax na ay wax ci Amadou Ba. waaw mi ngi noonu Serigne Abdou comme ni ko Sohibou bu waxee. Euh, kii di Ousmane Sonko kat. Euh, ñu ngi ko tëj ci kaso ba léegi. Mhm. ay vidéo am ñëpp naan Ousmane Sonko day wax. ba yàgg ñu ne usmaan Ousmane ko wax. te li mu mhm. wax it na ak li xew. Mhm. Euh, ñu ne nag ba mu ko waxee yàgg na. mais dafa wax lu bari teg. jamono ju mu tolloo rek mu génn teg lu méngoog loolu yi. xam nga sooy bu hmm. yàlla du jiital cuune. du jiital ko xamul dara te comme tànn rek am na lu tax mu tànnee la dana la tànnee xam-xam wala mu tànnee la mbir hmm. chaque jour dama naan yàlla bu tànnee ab jaam day joor si malaaka asamaan su njëkk si ne la yéen malaaka jooru leen si noppi doomu aadama yi nee na man sama borom maa tànn man borom bu tedd bi rabbul xasati jabarut maa tànn diw bëgg ko na ngeen ma ko bëggale mm-hmm. moo tax nit ñi duñu am si yow sago saay bu tey di yàlla nag bu la jiitalee foog mu jiitalee la dara mm-hmm. gis nga vidéo bi xaw ma ndax dëgg la wala du dëgg mm-hmm. waaye bu doon na dëgg la wala bu dee dëgg la mu nekk lii waa ji defoon na ko avant na ko avant waaw ay mbir avant la ko daan def waaw maanaam lii ba mu koy def ci ah. tabaski jamono tabaski bi ñu ko barikadee képp koo xamante ni gis nga wala nga nekkat si mbir am na li yëngatu si mbiru état mhm. mbiru Ousmane Sonko fii lañ ko waroon a gas suul ñu xam ne li mbiru yàlla la mhm. ndax mbiru bakkan mhm. gis nga film boo xamante ne dawagut amul réel amul dara mu expliqué la film bi fu muy déparé ba muy feeñ ba ñëwee amul dara lu si changé hmm. nga xam ne li mbiru yàlla la sony bu sony bu mas naa wax ne ñaankat yee ko daan hmm? ñaankat yi sëñ bi kii lim nekk si moom ëpp na ñaankat ëpp na dimension sëriñ kenn xamul mu doon mbiru yàlla rek la sooy bu mhm. man mosumaa jommi waaye démb sa guddi jommi naa ba mu seetaane vidéo bi moo tax sooy bu mhm. mbiru Ousmane Sonko bi na si ñëpp tey def si attention mhm. élection yi nag jëwagu ñëwagut wala xewagut wala yegseeguñ fa waaye wér na ma wér yàlla élection yi moom ni muy dewee moom talaase talaase na ko ba pare te moom xamoon nañ du candidat amul benn wérante kon sooy bu na nit ñi rafetal te te nangu dogalu yàlla tey di yàlla du tànn cuune te lim tànn loolu lay dëgg te lim tànn loolu lay mat mm-hmm. nañ xam fi ñu jëm son bu insha allah am na solo kii nga xamante ni mooy euh, kilifa fii nga xam ne mooy Walfadjri di Cheikh Niass génnoon na fi ay jamono xamal leen di leen daal si waxin. Mhm. Ousmane Sonko mooy ki ñu war a jàppale. Mhm. ndax moo fi nekk. Mhm. waaye nag jamono jii ñu tollaate nee na ñii nga xamante ni ñoo fi nekk gun daal ki fi gën profil. mooy ki nga xam mooy Ba. yàgg si état. si doxalinam ak yàgg digganteem ak baayam. lépp rafetatoon rafetoon. kon jàpp nañu daal kii mooy ki gën profil euh, mu wax ko. xam nga euh, wax dafa jafe. waaye dégg moo ko gën a jafe. Hmm. déglu nag am na waaye dégg dafa jafe. Mhm. te it kilifa. Mhm. boo waxee rek yëngal lu bëree bëri bëri. Mhm. moo tax wax euh, léegoo léegi jooy na ñu ne ko wax looy jooy mu dañ maa wax fañ ma war te waxee. wala ñu wax ma te waxuma jotagul. dafa am benn kilifa goo xamante ne sëtu nitu yàlla la wala muy nekk sëtu yonantu. mu am benn waay boo xam ne ceddo bu xamul daara la. jëf ay ay maamam ay ceddo lañ. ñu dem daje si benn barab xam nga ñun lu ñu xamoon. Mhm. mooy doomi sëriñ fu ñu taseeg moom dañ koy màggal. di ko ndukkeel di ko xoolee ay maamam. ceddo fu ñu taseeg moom dañuy saagante jàppante ak moom saagante ak ndey. dóorante ak moom. Mhm. léegi nag ñu dem daje si benn public bu mag mbooloo mu nekk fa nit ñi bëri lool ba jéggi dayoo. Mhm. gaa yi ñëw direct def direct si ceddo bi jàpp loxo ceddo bi di ko fóon di ko suggal. au lieu ñu def ko doomi kilifa gi. ñu jàpp si codd bi di jàpp loxo yi di ko fóon di ko màggal di ko fóon di ko màggal ki doomu kilifa gi jógee fe neen da ngeen a jaawale hmm. man maay doomi diw sàngam hmm. doomi wëlu yu nàngam ak nàngam satu diw sàngam ak sàngam da ngeen a jaawale ceddo bi wàcc mu ñu mu toog mu toog fu ceddo bi toogoon sées bi gars yi ole ñu koy siyaare ñu di ko saaga di ko sànni xeer léegi nag mu laaj lu xew hmm. ceddo bi ne ko pourtant nekku dara lu garaaw de man dama bàyyi sama yoonu ba maam bay ceddo topp sa yoonu maam bay jullit mhm. yow na nga bàyyi sa yoonu maam wuy wulli yàlla topp sama yoonu maam bay ceddo jaay jël sama sa maqaama maam ràngal ma ko jël sama maqaama maam ràngal la ko moo tax lu muy tegtale mooy képp ku wàcce sa ànd ànd boo dem fekk fa borom mhm. kii nekku doomi wëliyu ab ceddo la bu xamul dara dem barab nit ñi di ko sukkal di ko màggal di ko raamal ki nekk doomi wëliyu yàlla dem barab ñu koy saaga mhm. mu laaj lu xew mu ne waa ji ne ko man dama gis ne ma sama maam ak sama yoonu maam du dëkk ma bàyyi sama yoonu maam topp sa yoonu maam woy dëgg yow nga bàyyi sama yoonu maam bay yow nga bàyyi sa yoonu maam bay dëgg topp sama yoonu maam buy caaxaan gars yi jël sa yoonu maam bay dëgg ràngal ma ko jël sama yoonu maam bay caaxaan ràngal la ko moo tax lu baax ak lu bon mënuñoo yem moo tax sooy bu mhm. képp kuy wax si réew mi ni nga xam li nga wax ak fi ngay teg sa tànk mhm. ndax waar yi bëri na trop mhm. te day indil nit ñi jafe-jafe te loolu baaxul moo tax yoonu kilifa dafa xaw a jafe kilifa xamal ni nga war a wax ak fi nga war a waxee donn sa kilifa maanaam donn kilifa dafa jafe daal waaw dafa jafe dafa jafe wolof day wax naan donn sa baay doon sa baay ko gën d'accord waaw yàlla nañ doon suñ baay ñun ñëpp est-ce que dugal si lu ne hmm? jafe-jafe ah doomu aadama boo amee jafe-jafe tey nekk jullit xam nga yoonu jafe-jafe liy faj jafe-jafe mooy ñaan yàlla incha allah gis nga bu ko am buur bu tool ni yàlla waroo raam si keneen ku dut borom bi subhaanahu wa taala hmm. moo tax mag ñi dañ daan wax ne taalibe bu amee soxla na yàgg si der ba ku dul taalibe nag bu amul soxla na sol dàllam ndax soxlaam course mënu koo faj dëgg la yàlla joxe ñeneen koo xam ne jàpp nga ni yor na ko nag te mën na ah, la ko ah xaw ma si dara nag Assane Mesere nañ tëj émission bi <laughs> très bien nañ tëj émission bi xam nga Assane yow xalaat yi nga amoon nga bëgg a ñàddal sañu Abdou dana dik ko wax baarakallah <laughs> jërëjëf lii lañ indi woon mbokk yi kon sant nañ leen gërëm leen bàyyi looy tàggoo mm. xanaa santaan ñëpp gërëm leen di leen wax ni leen euh, samedi ba ña nga fële sa daaray Maam Mor mm. kon na fa ñëpp ñëw ñu fekkante fa waaye it lii nga xamante ni mooy la trois ña nga fële. ca Kaymoor Kaymoor incha allah Cheikh Abdullah sa Cheikh Abdullah moom sëñ Jim Ndiaye mm-hmm. kon daal la trois ña nga foofa mm-hmm. ngeen waajal ko bu baax a baax a baax incha allah mm-hmm. jërë ngeen jëf mbokk yi kon loolu lañu ñu indili woon euh, gërëm Abdou euh, Topp ak Ablaye Diallo Alaaji du Diouf euh, ñoo nekkoon ci réalisation bi ak miniature yeek def yëf gërëm Sëriñ fàll Gumba la jox leen ab dikk ba ajjuma ak alxamis ca Walfajri asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa